ñaareel ba wasfu almuridina an charcillahi bi annahum zalimuna li anfusihim képp ku won gannaaw sharia muy li yàlla jàngale kooku daa tooñ boppam daa tooñ boppam sun borom tabaraka wa taala mi koy wax nee na ñooñu tooñuñu ma man seen bopp lañ tooñ wa ma zalamuna walakin kaanu anfusahum yazlimun tooñu ñu ma seen bopp lañ tooñ kon nit ki dana tooñ bakkanam moo ko yarut moo ko sellalut moo ko jàngalut moo ko tegul ci siraatul mustaqim tooñaange jooju du caagi di yàlla leen ko to du yàgg yàlla tooñu leen de waaye ñoom kay ñoo tooñ seen bakkan wa ma zalamahum allahu walakin anfusahum yazlimun yàlla tooñu leen waaye ñoom ñoo tooñ seen bopp al imam ibnul qayim day wax ci téere bi ñuy wax al jawaabul kaafi nee na min uqubaati dunubi annaha tuzilu niam wa tuxillu niqam nee na bokk na ci mbugalum bàkkaar mbugalum bàkkaar ne day dindi xéewal waaye day indi itam mbugal فما زالت عن العبد نعمة إلا لسبب ذنب nee na amul benn xéewal boo xam ne yàlla dana ko xéewal ba mu yàgg nga jékki-jékki gisatoo ko lu dul bàkkaara ko waral wala xallat bihi niqmatun illa bi danbin mbugal wàccut ci nit ki lu dul ci bàkkaar nee na ni ko Ali ibn Abi Talib waxee nee na ma nazala balaaun illa bi danbin wala rufi'a balaaun illa bi tawba nee na balaa du wàcc ci nit lu ci bàkkaar balaa di su dindee ci nit lu dul dafa tuub borom bi tabaraka wa taala nee na wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir lépp loo xam ne dal na leen ci musiba nee na seeni yoxo moo ko fàkk te nag na lu bari de waaye su loo def lu ne mu dal la koy ci saasi kon ma taraka ala zahriha min daabba kon du fi bàyyi kon kenn du fi des dalika bi ann allaha lam yaku mugayiran nicmatan anamaha ala qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim wa anna allaha samiun alim loolu robb nañ ko léegi waaye ibnul qayim da koo tuddaale ci texte bi nee na borom bi tabaraka wa taala foofu la nu xabaare ne moom xéewal yim la jox du ko rékki maanaam du ko dindi yële ko ci kenn lu dul kooko moo changé la nekkoon ci bakkanam ci njub moo ko saafi jëm ko ci dund ba mu soppee topp yàlla ga nag jëm ci mooy yàlla soppi caltug yàlla ga jëme ko ci wetti xéewali yàlla ak ay sababam nee na yàlla soppi ko jazaan wifaqa lu tolloog lam soppi yàlla soppil ko lu tol noonu wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid yàlla du tooñ mu teg ca waqad axsana al qaayil ibn al qayyim mooy wax ba tey ida kunta fi nicmatin faraaha ida kunta fi nicmatin faraaha fa inna dunuba tuzilu nnicam wa xutha bitaacati rabbi alcibaadi fa rabbu alcibaadi sariicu niqam nee na ida kunta fi nicmatin su fekkee yaa ngi ci xéewal xéewalu njub mooy ki jiite xéwal yi njub buñ ko waxee mooy tawxiid ak sunna su fekkee ne yaa ngi ci xéewalu njub xéewalu alal xéewalu wér-gi-yaram nee na faraha na nga ko sàmm nu ma koy sàmmee mu ne fa inna dunuba tuzilu niam bàkkaar ya dañuy dindi ay xéewal bàkkaar day dindi xéewal dana dindi xéewalu wér yaram dana dindi xéewaluk alal dana dindi sax xéewaluk jub te moom lay jëkk a dindi mu ne wa xotha bi taati rabbil ibaadi nanga ko wutal barage moom xéewal yooyu nu ma koy wute mu ne bi taati rabbil ibaadi ci topp ki moom jaam yi fa rabbul ibaadi sariicu niqam boroom jaam ñi kat ku gaawa fayantoo la ku gaawa indi mbugal la kon mu ngoog juróomeelu taxawaay bi min madlulaati al aaya an liltaxyir addiini wal ijtimaaci anwaan yalbaqi alwuquf indaha soppi soppi li ci bakkan yi soppi li ci li nuy dund moo ci mbirum diine la wala ci wàllu social dafa am ñetti xaaj dafa am ñetti xaaj yoo xam ne benn bu ci ne danañ ca junj rekk dara bi ci njëkk mooy at taxayir ala mustawa al soppi goo xam ne kenn ku ne la war bi ci des mooy at taxayir ala mustawa dawla soppi goo xam ne bu la neexee nga ne réew mi la war wala état bi la war mooy responsabilité bi ñëpp bokk beneen bi ci des ala mustawal umma xeet wi ci boppam soppi gi leen war ñoom bi ci jëkk at taxyiru ala mustawal fard nga xam ne kenn ku ne sa responsabilité bopp boo wéedee ci sa bopp toog bi xool sa bopp comme commerçant bi nga xam ne yëngu na ci dara ba weer dee mu dugg ci roqam tëj buntam toog yor ay calculateur am ak ay yëfam kayit yi wër ko muy xool ndax weer wii moom da cee perte wala da cee bénéfice wala ban situation la ci jëlee wéetal ak sa bopp kenn ku ne nga xam ne am nga responsabilité ci wàllu changement ci sa bopp nga xool yi may tudd fattish an aqidatika wa ghayyir ma la yuwaafiqu sunna wéetal fi sa bopp fi sa roq nga vérifier sa bopp ci wàllu pastéef pastéef mooy pas-pas ndax am na lenn loo xam ne tàbbi na ci sa pas-pas bii te wóoteeg sunna gaawal soppi ko gaawal soppi ko yàlla soppil la say biir inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim tëddoo na nekk ci biir jàpp ci di góorgóorlu ci kaw yépp ne diw sàngam ab sunnit la loolu baax na lool waaye nag yaa gën a xam sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira boo wéetee ba xool sa bopp xam nga yi ngay def yépp yow ndax dëppoo nag sunna wala déet léeg-léeg ab nattu am ci ay mbir yu tar ay nit taxaw yoo xam ne lañuy def wóor na la ne naa nañ dañuy faj waaye nii ñuy faje dëppawut ak sunna njàqare ak tiitaange wakkirlu ci yàlla bu manki tax nga dem ci ñooñee wala nga wax ak ñoom ne leen dama bëgg ku ma defal nangam sama doom ji wala sama soxna si wala sama sama jëmm ji loolu moog waa dem ci jabar yi rek benn su boobaa am na lu ne ci sa pas-pas loo xam ne gaawal nga dindi mu daj am nga lenn looy sikki sàkka ci mbirum diine ji li sax gaawal dindee ko ci sikk sàkk yóbbu ko ci yaqiin lépp luy nuru bokkaale gaawal nga jóg ci jëm ci tawxiid kon noonu la ñuy vérifier pas-pas beneen ba qaarin cibaadatika bima jaa fi lkitaabi wassunna watrax maa laa yasbutu bi dalil say jaamu yàlla yi ngay jaamu yàlla guddi ak bëccëg la ca doon farata ak la ca doon naafila vérifier lépp teg ko ci balance bi xool ndax am na ci lenn loo xam ne maa ngi koy jëf te amul dalil wala xaw ma dalilam su amul dalil sànnil ci àll soo xamul dalilam laajal borom xam-xam ñiy wax la ndax am na dalil wala amu ko ci loolu ngay mën a seggee say jaamu yàlla ba mu set wecc ci biddaa nga mucc ci xallis a min al biddaa ñetteel ba iqra سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله لتتأسى بأخلاقه الكريم jàngal dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglul bu baax jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne mi ngi ci téere siira yi mi ngi ci téere yi ñu tudde chamail mi ngi ci téere xadis yi te boroom xam-xam yi yi ngi koy jàngale ci jàkk yi amal yitte joo xam ne dana àgg ci darsub siira foo ko déggee bu mu la raw na mën a teglu bu baax boo mënee bind na nga yor sa bindukaay jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexeel ba ko soo ko defee sa jikko dana baax pas-pas bi jaamu yàlla yi jikko ci am na yu mat a xam nag moo di ñeenteel bi taxyirul xuluqi wal aada yaxtaaju ila salaamati al ictiqaad wa quwati tawakkul wa tasmim nit ki lim tam limu mu tàmm nga xam ne lii la aadawo mujj la nekk habitude soppi ko lu jafe la soppi ko lu jafe la waaye nag lu mën a nekk la borom pas-pas rek kii moom xam na ne lii mu nekk nii aada joo xam ne miin na ko di ko jafe ci maamam ba tey bokkul ci diine ji am na ci pas-pas loo xam ne mën na koo dindi tey jii am na ci wakkiirlu ci yàlla loo xam ne mën na koo dindi am na ci fulla ak fayda loo xam ne mën na koo dindi tey kon dëgg la soppi lu jafe-jafe-jafe la dañuy wax ne am na basketkatu américain bu mën a basket Michael Jordan dafa am ku doon jouer ab film ci wàllu publicité am lu muy war a naan ñu pëkk bu ñëwee day taw ba agsi ci pañe bi sànni mu moy mu daldi naan dawaat ñëw sànni mu dugg loolu moo doon scénario bi nga xam ne moom lañ ko doon enregistré ñu ne toog nañ fa di jéem a enregistré lu yàgg yàgg saa ko dawee ba agsi rek bu sànnee mu dugg te dañoo bëggoon mu mooy su ko defee bu ñëwee mu door a dugg waaye ni mu ko tàmmee ak fi nga xamee ne su ma see toll bi su sànnee day dugg ngir mu mooy rek jafe na ci moom su fekkee loolu la dikki di aadawo ba mu jafe ci moom mu naka aada yi nga xam ne soo waxee nit ñi ne hada ma naa alayhi abaana lii kat dañ koo fekkoon sun maam yi lii kat démb la woon lii kat moom baaxub dëkk bi la wala baaxub askan wi la yooyu lañ lay toppe ba def ci sa bopp loo xam ne day mujj korodique nga jàpp ne lii dafa doon loo xam ne mun ta dañ sooy boo ñu soppi yeneen yi ci des bii moom ñi bàyyi ko fi yépp lañ war a soppi ginnaaw bokkul ci diine ji te diine ji nangu ko juróomeel bi mooy al aafiyatu kulluha fi salaamati min dimaai nnaasi wa amwaalihim muc araadihim mucc gépp mucc gi nga xam ne su dee da ngaa bëgg a soppiku jaar ci yoon wi gannaaw boo wéralee pas-pas beeg jaamu yàlla ak jikko yi muccal ci yi dereti doomu aadama alali doomu aadama deret doomu aadama rawatina jullit alal joo moomul ba fa la sant benn dërëm bu tàbbi ci sa alal te moomoo ko kaas bopp soow boo doon bëgg a naan doxuk deret tab bi ci ñooya doo ko naan tuur ko ngay def kon sàmmal sa bopp ba mucc ci alal joo soo lebee fayal soo abbee delloon soo rombee rombantem bu laal seeni der neke noonu fu ñuy jëlee bul ko fekke boo leen mënta noppiloo boo leen bu ko fekke fu ñuy xase nit fu ñuy saaga léeg-léeg nit ñi dañuy saaraan ba fàtte seen diine boo xoolee jamono yi li ci misaal jamono yi politique di tàng dëgg-dëgg jaar ngeen ci bu yàggul day mujj mel ne dereti politiciens yi moom ak seeni der ak seen lépp dagat na léegi maanaam lu la neex wax ko diw sàngam lu la neex rek nga gis koo dañuy dem ba àgg ci tudd waajuram ndeyam walla baayam àgg ci saaga ko moom ci boppam publiquement ñiy dégg xeeti xas yoo xam ne yaa ngi koy wax te yow buñ la laajoon nga def jullit la léegi-léeg sax laaj la nga de ci ahlu sunna nga bokk waaw da ngaa fàtte diine ji wala da ngaa ne li daganoon wala li xaraamoon politique bi dañoo soppi ko mu dagan léegi wala li tade noonu politique bi di ñëw xaraamal ko déedéet diine jaa nga ya tade noon a nga fa ya xaraamoon a nga fa derub jàmbor amuloo droit di ci wax di ko xas di ko saaga amoo ko ak ku mën a doon rawatina léeg-léeg kilifa lay doon réseaux sociaux boo ci ubbee di xool da ngay bu jurus yow da nga lii est-ce que ay jullit a ko yokk wala daa am ñeneen ñu tàppe ci seen biir ñoo xam ne euh, chayaatil jinn lañ wala ay lañ wala leneen yan façon doomu aadama lañ doo ko xam kon alsalaamatu kulluha wala alaafiyatu kulluha fi salaamati min dimaa innaasi wa amwaalihim wa araabihim kooku mooy ala al fard kenn ku nekk yooyu war nga ci segg sa bopp ñaareel ba ala mustawa dawla kenn ku nekk xam na ne situation yi nit ñi di dund ci sun réew yii du ma wax sun réew mii waaye sun réew yii laay wax tàmbalee ko ci Afrique yóbbu ko ci li ëpp ci réew yi jullit yi moo di yëg nañ ne changement dafa war a am changement dafa maanaam li ñuy dund danoo war a dund leneen lu bokkut ak loolu dañoo war a dund lu ko gën loolu moom defe naa ne su fekkee ijmaa am na maanaam lu ñuy dëppoo loolu dëppoo nañ ci wala déet baax na nii dafa na ajana soppi waaw kon dana jaadu lu am tuuti ci qawaidu taxyir moo di at taxyiru yabda'u bil qaaidati qabla al qidma soppi ci suuf lay tàmbalee di màgg waaye du tàmbalee ca kaw di wàcc ci suuf lay tàmbalee qaayida bi ci suuf su baaxee màgg baax lu baax a fay nekk daanaa wax bu yàgg ma ne nit ñi nuy yar ak di leen jàngal ci sun école yi buñ màggee ñoo nuy jiit luñ jëli ay nit te yeneen réew ya naan leen kaay leen jiitam kon liñ def ci ñoom noonu loola lañuy ñuy màggaale noonu la ñuy mel buñ dikkee jiite kon la nga bëgg sa nit mel na bu ëllëg bu ëllëgee tabax ko léegi tabax ko léegi su màggee rek mel noonu ñaareel ba attaxyiru yabda'u bil insaani qabla al umraan soppi jóge ci ab sapaan jëm ca la ci nit lay tàmbalee waaye du tàmbalee ci ab sima ciment bi moom soppi ko ak tabax yoon yeeg tabax bërëb yeeg yu mel noonu yooyu yëpp mën naa waaye bu sottee te nit soppikuwul nit jubul nit jaarul ci siraatul mustaqim nit gëmul yàlla nit xolam bii nekk gëm yàlla nekk ci muy contrôler boppam ci misaanu sharia muy balaasu sharia li fee soppeegoo loolu soppeegoo dara loo tabaxoon lu ne bés a ngi ñëw nga yàqaat ko ca teel ba التغيير والإصلاح لا يكون بتغيير الأشخاص لكن بتغيير الأحوال soppi ak mën a def réforme jubbanti ajowul ci soppi ay nit waaye ci soppi ay melokaan la la nekk diw jóge na fa diw ñëw du loolu mooy soppi de waaye nekkoon nañ ci melokaan léegi ci melokaan lañ nekk loolu mooy soppi réew yu bari noonu su réew mi sax ni ñuy soppee ay jëmm dafa xaw a yeex ndax noo ngi toll ci juróomeelu président waaye am nay réew yuñ dendal yoo xam ne ñu ngi ci seen fukkeeli président ak ñeent te noo amandoo woon indépendance te lañ doon jàmbat ba tey ñu ngi continuer di ko jàmbat kon soppi gi du caaga ne diw dem na diw ñëw na waaye soppi gi mooy noo ngi doon dund nangam léegi kat alhamdulilah noo gi jaar siraatul mustaqim kon suñ njort na rafet ba ca tegu at taxyiru laysa bil kalaam al mujarrad laakin bil azimati wal amal soppi du ci ay wax waaye soppi jëf la yu ànd ak dogu ci fas yéene mbir mi baax te jaare ko ci yoon wi nga xam ni ko ca jaar baax ba ca mujj al taxyiru wal islaax laa yakunu min al xaarij soppi baaxal réew bi du ay nit ay jóge ci biti dinu ko defal waaye doon ci suñ biir noo ko mën a defal suñ réew mu ne ñoo mën a baaxal seen biir dañuy wax ne ak taxyir xiina yakunu min addaaxil kal bayda al baydatu xiina tuksaru min addaaxili tabda'u alxayaa wa xiina tuksaru min alxaariji tantahi alxayaa ab nen boo ko jëlee teg ko fi ganaar gi di bóof ba mu yàgg nen bi tojal boppam foofala la di tàmbalee ah foofa la dund gay tàmbalee kon soppi ci biir lay waaye nen bi bis boo xamee ne ña ngi ko yor di ko toj tojal di ko toj sëñ Ahmed Abdul Majid Cissé ko maanaam waaye saa bu ko tojee ne da koy foofa tamtalil xayaa su dee keneen ay ñëw di la soppi si sam réew di la ko defaral xamal ne sa dund foofa lay yem yow kon soppi ci biir lay jóge waaye du jóge ci bit bu dee ala mustawal umma nag quwatul ummati wa tamaasukuha wa tadaamun fi fi tamaasukiha wa tadaamuniha doole xeetu lislaam ci jàppante ak bennoo ci la nekk borom bi nee na wa atiicu llaha wa rasulahu wala tanaazacu fa tafchalu wa tadhaba riixukum wasbiru inna allaha maa sabirin topp leen yàlla topp ab yonentam te bu ko maanaam bu leen xëccu bay tàqali ko su ngeen ko defee da di échec seen kàttan dem loolu ku xool xeet wi da nga xam ne loolu la ñuy dund tey mooy waxi sunu borom tabaaraka wa taala topp yàllaa ko yonentam mooy la jiit kon jàpp ci alxuraan ak sunna mooy tomb bi jiitu de ngir ngeen mën a bañ a xëccoo waaye su ngeen wanee gannaaw alxuraan ak sunna xëccoo bi tàmbali ak ngaayoo bi ba mu waxee dafa in aamano bi misli ma aamantum bihi faqad ihtadaw lu mu ca teg wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq su fekkee ne wan ngeen gannaaw alxuraan ak sunna la ba sës xëccoo ŋaayoo meroo xeexoo xeet wi daal di néew doon yaareel bi tamkiinul um-, umma tamkiinul ummati fi tamassukiha bi diiniha imaanan wa amalan saaliha ngir yàlla jox xeet wi kàttan gim yeyoo ba ay noonam du ko yàpp mi ngi tegu ci seen pas-pas seen jàpp ci seen diine ak seen jëf ju baax وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون borom bi tabaraka wa taala nee na waada allahu yàlla dafa dige ñan la dig alladina amanu ñi nga xam ne dañ koo gëm yàlla dig na leen ne leen seen gëm gi waa amilu saalihaat ginnaaw ànd naag jëf ju baax la yastaxlifannahum fi l ard dana leen teg ci kaw suuf ñu jiite képp ku dul ñoom maanaam nekk ay xalifa yi yàlla yu yàlla moom nam ko maye woon ñi leen jiitu woon te juboon boo delloo ci jamono xulafa ar-rashidin ak yu nuroog loola dana leen dëgëral ci seen diine yi nga xam ne moom la gërëm loo muy diine ji wàccoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen ragal geeg seen néew doole gi ñuy dund dana leen ko wotteel mu nekk ak kóolute waaye rek sàrt bu mooy yaabuduuna nii laa yushrikuuna bi shay'a dañ may jaamu te bañ ma bokkaale ak dara ñetteelu tomb bi ci li jaadu ci xeet yi mooy taxyiru xaali l ummati yatatallabu i'daad al quwati wal wa'yi wal idraak soppi li xeet wi dund dafa aaje ñu soppi préparé kàttan goo xam ne ku dul ñoom daga leen wekk wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaati alxayli bi bihi aduwa allahi wa aduwa irhaab bi nga xam ne daf fexe ba mu nekk aw tur woo xam ne suñ ko tuddee nit ñi di rab-rabi yàlla da ko santaane waaye ñoom la ñuy firi bokkut ak li yàlla di wax yàlla nee na préparé leen seen bopp ci quwa ci force ngànnaay yéen réew mi na ngeen am ci ngànnaay loo xam ne seeni noonu danañ leen ragal ba du leen song loolu ku ne sañ na ko néewul wut leeni ngànnaay dem dal ci kaw kenn waaye ku bëggoon a jëm si ci yéen dana leen xalaat benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba junni yoon mujj mu teg ay ngànnaayam ci suuf lu tax mooy xam nañ ne préparé ngeen seen bopp ba jekk loolu la yàlla santaane kon jaadu na ci ñi ñu tudde ulul amr ulul amr ñi nga xam ne ñoom méngoo mbiri jullit yi ci kaw suuf ñooñu suñ ko waxee mooy alqiyaadaatu alilmiya wa alqiyaadaatu alsultaaniya bu la neexee nga ne al ulamaau wal umara ñi yàlla teg ci seen loxo xam-xamu sharia ci xeet mi ak ñi yàlla teg ci seen loxo xam-xamu jiite xeet wi ci wàllu ngëb ñooñu dey am nañu responsabilité bu rëy rëy rëy ci charte yi nga xam ne mooy tax xeet wi delloosiwaat palaasam bi mu yeyoo am nañu responsabilité bu rëy boo xam ne danañ ko tabax ci ndawi xeet wi jaarale ko ci jàngale jaarale ko ci yar jaarale ko ci daawa ak jubbanti ak digle lu baax ak tere lu bon fexe ba dëgëral leen tabax leen ci pas-pas tabaxiin woo xam ne danañ ko royee ci tabaxiin wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon tabax saxaaba yi ca Makka fukki at yu mat sët ñu di tabax ci wàllu pas-pas koor nekkagul farata aj nekkagul farata xanaa julli rek gannaaw bu juróomi at jàllee wala lu ko nuru lay door a doon farata jaamu yàlla yu bari bim daataan ñëw dañ leen a tabax tabax bañ doon ay góor kon tabaxaat ndaw ñi ci wàllu xam-xam wàllu jàngale méthode yi ñuy jàngal nit ñi ñu xoolaat ko bu baax a baax li ñuy jàngale ñu xoolaat ko ban sénégalais lan soxla ëllëg mu war a jiite xeet bu dee ci meneen réew ban rek doom lañ soxla ngir mu war yan waroomi xam-xam yan ingénieur yan way xarañ lañ soxla ci àdduna ngir ñu wommat xeetu lislaam delloo ko ci la nga xam ne mooy siraatul mustaqim programme yooyu yu mat a foonaat la benn réew mu nekk ci niveau ñi xool li nga xam ne lépp am na ci xeetu gàttañlu ak xeetu càggante ñu soppi ko suñ ko soppee suñu borom tabaraka wa dana dana soppi li nekk ci xeet wi ci ak doyadi ci ak suufe ci ak yabeel goo xam ne seeni noon yàpp na leen ko ku gis lii nga xam ne mooy xew ci Palestine tey fi ñu nekk nga xam ne lu nekk lu ne rek ñu ngi leen koy teg adduna ak li ci biiram ne cell jullit yi àndandoo ci seen biir ne cell li ñoom itam loolu mooy image bi lay jox fi xeet wi toll tey ci doyadi ak ak ñàkk solo ñàkk wakkeelu ci yàlla suufe ba seeni noon jël seeni tànk teg ko ci seen kaw te nag borom bi tabaraka wa taala day xakiim la li muy def lu mu xam la xakiimun xabiir li mu jëf jullit yi tey ci alal nga xam ne daanaka xeer yi ci des yépp seeni civilisation seeni alal ak seeni bitseeg yëpp arale jullit yi lañu ci yaakaar jullit yi rawatina suñ mbokki arab yi li ñuy jënd ci ay ngànnaay di ko denc par at yooyu ngànnaay du nekk ci loxo jullit yi ab noon jóge fële di faagaagal ab dëkk ñu denc seen ngànnaay yooyu toog di seetaan ay nit taxaw di ñaan yàlla di nangu ñaan yàlla jox na la jox na la li nga xam ne boo ko jëfandikoo sam noon torox nga lànk bañ koo jëfandikoo yàlla bala moo nangu sag ñaan day fekk nga def li nga mën lépp ba mu jeex bu malaaka waree ñëw ma yi ñëw bu leneen waree ñëw leneen ñëw ñaanu gi buy nangu suñu borom tabaaraka ko taala moo xam na muy nangu waaye jaam bi ñaan ko do xeex ko dox sa digganteekum noonu nga denc ci ay gànnaay loo xam ne ay milliards nga ko jënde ñu nekk ci ay magasin ñu tëj ko nga toog bi seetaan lay xew di xew ñiy julli ca jàkka ya naan allahuma anzil alayna malaikatan yàlla du wàcce ay malaaka du ko def du ci noonu jëfandikoo li nga am ba mu jeex su boobaa sun borom tabaraka wa taala moo xam day wàcce ay malaayika wala day yebal ay tayran ababil wala lu muy def lu mu mën a doon su boobaa coobareem biram innama amruhu ida arada cheyan an yaqul lahu kun fa yakun su ko neexoon noon bi alkul mu daal di alku fa mu toog ñu xëy ñoom ñëpp nelaw duñ yeewu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 jàpp naa ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teew ci jotaay bi lii nga xam ne moom lañu seex bi traité le thème bi nga xam ne moom lañu ñu tànnoon ci laaye jooju ñu waxoon sànq ba inna allah la yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim li may ñaax sam bopp ko ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew rek mooy waxtaan wi ñu ñu ci ñu ciy delluwaat ndax jàpp naa ne jotaay bii ñu toog li nga xam ne moom la fi dootal ci njariñ dina gàtt lool ñu mën a jël li nga xam ne moo nekk ci waxtaan wi yëpp jariñoo moo tax di ci dellu di ko dégluwaat dinañu dimbali bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ci wax ci li yàlla wax ne inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim bu ko defee ñun du ci guddal amul lenn it loo xam ne dinañ ko ci jéem a mat na sëkk incha allah ba ci li ci des rek mooy li nga xam ne moo fi rot ci ay thèmes caay ci ay laaj ñu xool yi nga xam ne moo fi xaj bana dappaak waxtaan wi it ñu daal di koy gaaral cheikh bi bu defee mu daal di ci tontu incha allah buñ ci noppee ñu daal di euh, jëlli yeewoo ko incha allah ñu delloo kàddu gi eh, Cheikh Aboubacar balaa ñuy ñëw ci question naam kon eh, ñu ngi sant yàlla liñ ci gaaral wax dëgg yàlla daanaka eh, doy na ci ay xeetu jàngale ngir ñu mën a jëriñu yàlla yàlla def message bi yegg fi mu war a yegg ñi ko war a dégg dégg ko waaye ñi ko war a jëfe itamit ñu jëfe ko ñun itamit ñi fi teew ku nekk ci sa wàll li nga war a jëfe nga jëfee ko comme ni ko chef bi waxee di mu barkeel xam-xam bi ko fi sunu kanam ba si kanam incha allah euh, ñoo ngi doon am yéene balaa ñu yëkkati jotaay bi mooy ñu jàllale benn projection bu ndaw xaw ma ndax technicien kale woon nañ ko ba pare wala déet ngir mën a wane rek li nga xam ne moom lañ bëgg a jëmmal ci centre islamique ñu mën ci teg bët xam ne lii mooy suñu jubluwaay pare nag pour tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo fi teew ba si ñi koy jot si internet bi képp ku si mën a jàpp fii sabilillahi su ko defee loolu bu jàllee li nga xam ne moom mooy question yi ñu woon gaaral ndànk-ndànk ba keroog ba ñu yem ci fi ñu war a mën a yem ñu daal dee julli yëkkati jotaay bi li daal moom moo ci des incha allah technicien bu fekkee pare ngeen ñu teewlu tuuti rek ci programme yi nga xam ne ñu ngi koy projeté xëy na ni nga am yaakaar ne ñëpp ñu ngi koy gis kon projet bi moo ngi noonu ñu bàyyi xel écran bi xam naa du ñàkk dina am ñu toog côté bi ñu xaw a am tu kii dama xamul ndax sun soxna yi nekk ci salle bi ñu ngi koy gis wala déet waaw ñu ngi koy gis bu fekkee am na correspondance ci image bu nekkee lu baax la ñu bàyyi noo ko xel allah kon mu ngi noonu projet bi li ci gën a fës bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci aajowoo ngir mën ko jëmmal ci li technicien yi jotoo

mooy centre de conférence am madrasa léegi loolu pour moom la ñu ne moom mooy trois cent millions am na nag terrain bu ñu nekk di waxaate boo xam ne bu ñu jege la te bu fekkee yàlla sotti na mbir bi amee foofu dana mën a jëriñ askan waa Tëngéej jëf ak li ko wër mu ngi noonu technicien li ñu simulé nii moom mooy li ñuy tuddee projection 3D yi ñu mën a xam ci biir. nii lay mel ci biti nii lay mel ak surface bi mu war a jël projection bi li muy wane mooy ne jàkk bi ak li ko wër lépp dañ ko war a amal ci lu tolloog cinq cent mètres carrés léegi lu aju ci wàllu madrasa bi dañ ko ci intégré te xeetu xam-xam yi ci bëgg jàngale dañoo xool jamono ji ni mu tëddee ak fi ñu ak xeetu xam-xam yi nga xam dafa nekk ci défi yi gis ne war nañoo am ay xarala war nañoo fexe ba teg système ba nga xamante ne bii nit ki ci bi muy nekk gone dana maîtriser lu bari ci diineem comme ni ko chef yi waxee léegi rek danañ ko yar ba nga xamante ne bii bu magwaalee loolu day teel a dugg ci ay métier yoo xamante ne bii ci cadre liggéey lay doon léegi li nga di gis nii moom mooy intérieur bi ñuy wane ay toilettes. di wane intérieur extérieur mooy projection 3D te ñi ko réaliser nekkul ñu jóge bitim réew ñoom ñi nekk ci biir association bi ñoo ko réaliser def ay simulation ay biñ ko njëkkee projet dama ne leen tooñ ñu parce que war def ay naar ci biir ay Sénégal ngeen waroon def ci biir ak ay waa Tëngéej mais daanaka loolu du muskila kon mu ñu noonu daal ci seen kanam ngeen gisee ko noonu boobu mooy niveau supérieur bi nga xam ne R plus 1 la gis ngeen toile ni nuñ ko tëggee ak yi ci war a aju yëpp lii ay xale la yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci école bi kon mbir yaa ngi noonu ñu ngi leen ci tàllal yéen ñëpp seen ndimbal liñ ci bëggoon gaaral rek mooy ne jëmmi projet bi biñ ko nekkee di négocier fi ñu war a amal programme boobu borom terrain bi dafa am benn xàll bu rëy lu toll ak trois cent mètres carrés loo xam te ne bi daf si jubloo woon def jàkka def ko fi sabilillah yàlla ko yàlla nangul yeneen kon ñun tey buñ ko doon jënd xaaj bi nga xam ne moom mooy habilité école bi loolu lañ ñuy jaay waaye xaaj bi nga xam moo jëm si jàkk bi daf ñu ko bëgg may fii sabilillahi kon loolu jaamu yàlla gu réer la yàlla ko yàlla nangul li ci des nag day dellu si ñun jullit ñi ñu xool nu ñu góorgóorlu ba lool ñu jëm koo jëmbal te association yi fi nekk yëpp tamit ñu ngi leen di woo ñu ànd ak ñoom ci activité boobu su ko defee loolu moo nekk liñ bëggoon jàllale kon ñu daal di jàll ci question yi information bi bëggoon baaxee mbokk yi rek mooy ne oustaz Khadim Diop nekk Sangalkam am na conférence bu muy waajal le vingt cinq le vingt six mois de mais bii di ñëw mooy mën a ëllëg foof moom mooy daara ji te cheikh bi dafa na am lu mu ci war a waaw kon Khadim Diop moom mooy li yëgal benn conférence bi war a am fële ci Sangalkam le 26 mai bii di war a ñëw incha allah kon yàlla ci yàpp ñu kon bismillah bu fekkee question yi pare nañ sa mën si addu balaa ñu yëkkati نعم بدأ الوقت ينهي طه إذا قلت لهم حتى يدرون أن الأب ما تعطي ما بقول بو waaw. jëlee jëlee di kër ka. waaw. xam sa rek doy. juróom doy donc bëgg ñu jëlee di kër ka. ay une heure et quart. dafa doy. jazakumullahu xayran tour. jazaakum allahu xayran cheikhana yal na yàlla dolli leen sàmm bu baax teel ak dund ngeen ci jàngale leen ko defal leen ko fi daani ñu doon jàng li ci dégg mu def ko mu nekk suñu njëriñ Claramente. na xam naa ci ci question yi nga xam ni ñoom ñoo fi rot ci dafay wax lan ngeen di dénk koo xam ni daa bëgg a sellal ba kenam ci yan yoon lay jaar ba sellal ba kenam bismillah rahmaan rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala xam naa bala ma àddu bi danaa sob sama kàddu ci li mbokk yi doon gaaral léegi liggéeyub lislaam boo xasee taxaw ak fu mu mën a taxawee liggéey la bu jullit yépp bokk li nga xam ne fii nu toog nii jullit yi ñoo ko bokk tey jullit ñoo ko amal ba mu mel nii te bëgg mu raw ko su fi amul woon waxtaan wii nu fi bokk di déglu noonu yépp kon bu buñ koy defit feneen lañ koy def waaye du doon fii kon mbokk yi lii ñu gaaral beneenu parab la boo xam ne ci bérébi liggéey bi ci la bopp te it jullit bi buy def ci lu jëm ci diine lislaam bum ko xeeb sab am am lum tuuti tuuti am nga loo ci mën a def bul xeeb sax cinq franc ba ci cent franc ndax yàlla moo xam la sel moo xamit nam koy fulale boroom amaana dërëm balay tàbbal ajana joxee goo ko kon bul xeeb dara fexeel ba fuñ tàllale aw yiw woo xam ne wóor na la ne lii alquran ak sunna lay yëkkati fexeel ba sa dara dem ca kon mbokk yi man ci sama jëm bopp maa ngi leen di dig ne incha allah sama dara dana ci dem duma leen wax nag nu mu toll waaye bun jokkoo fan yi ba soobee yàlla dana agsi may sañi sama mbokki jullit képp koo xam ne mën naa yëkkati fi mu toog dara def ko ca mu def ko ku ko mënut it mu digee dara su ko manee bind ñooña bind ko yor carnet ba xam numéro bu ëllëgee ñu seeti ko wala ñu jokkoo moom loolu maa ngi koy laaye biir sama bopp di ko laaye biir sama mbokki jullit jazakumullahu xeyra amma nu ñuy sellale bakkan nag yaakaar naa mbokk mi su fekkee doon na déglu te nelawut wala mu yeex a ñëw looloo ngi biir waxtaan wi wax na ne mboolem jaamu yàlla yi luy sellal luy sellal bakkan jaamu yàlla yépp farata ya ak naafila ya lépp luy sellal bakkan lépp loo xam ne dañ koo tere ci lu baaxut nga di ko bàyyi jàpp ne loola ci luy sellal bakkan la mu des nag bëre bi nga war a bëre ak bakkan bi mooy rek leen teeg moom di toog weer wu nekk weer sax bari na bu la neexee bés bu set bala ngaa tëdd toogal fi béréb xalaat bésub tey bii yaata ngañaay nga gañe sa bakkan ak moom ci boppam ñaata ngañaay la la gañe nga fexe ba bés bi day tegu rek say say say dóor mooy ëpp fexe ba gañe ko lu ëpp lam la gañe woon démb soo saxee ci loolu di ko jël benn par benn di xool diggante jiw ak wax loo warta wax ak fab loo warta fab xool loo warta xool dox jëm foo warta jëm yooyu yi yëpp nga di ko boole di ko régler benn par benn bu yàggee danga nga not sa bakkan rawatina jumtuwaay bii nga yor kii li ci nekk ci njariñ kenn xamul nuñ toll waaye lim jengaloo ci nit kenn xamul nuñ toll lim jengaloo ci aw nit ñu baax sax kenn xamul nuñ toll fexe ba bés bu nekk nga régler sa bopp booy régler nga tàmbalee ci téléphone bi bésub tey bii lan laa ci xool loo xam ne waruma ko xool lan laa ci wax loo xam ne waruma ko wax lan laa ci bind loo xam ne waruma ko bind soo réglenteeg moom ko ba noppi xool yeneen yi ci des rek ya nga doon dox ca marché ba nit ña nga doon dajeel ak ña nga doon waxtaan ak yëpp bala ngaa tëdd nga def loolu fexe ba bés bu set nga gën na nga meloon démb soo ko defee bu yàggee nga gañe sa bakkan boole ko nag ak di ñaan sa borom tabaraka wa taala di ñaan yàlla mun dimbali la nga not sa bakkan parce que bakkan bi lu fetteer la loo xam ne boo xasee dëng seytaan rajim la lu ne mën na la caa dugal waliyaasu billah jazakumullah xeyrat seexana ci dafay wax ne ndem jamono yi ba na am na ay coppite yu ab ci wàllu politique nee dafa seetlu ne ñëpp a ngi am yaakaar ne dund bi dina soppeeku du la gën a neer mu waaye ndax loola mën na am bu fekkee ñu baree bari ci nit ñi ba léegi ñu ngi ci ay bidaa ak bokkaale waaw moom day xanaa ñaan ñaan yàlla moo defal ñu tawfiq ndax ay njiit buñ ñëwee yàlla dogal ñu doon itam ay ndaw te am ay yéene yu rafet loolu lan jàpp noonu am ay yéene ci defar la ca des mooy ñaanal leen rekk nag ñu xam ne liggéey bu rëy ba dëgg dëgg dëgg mi ngi ci li ngeen nekk seen jàngale bi seen yarab bi seen xutba yi ngeen di def ci jàkka ji nit ñi di ko déglu foofu la liggéey bu rëy bi nekk lu ngeen man ci yokk ko na ngeen ko def loolu yi fi la defar gi dëgg dëgg nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne ña ngeen gën a xeeb ci ñoo ñooñu fa la leen xéewal di jógee kon liggéey bi bu leen ko xeeb bu leen ko suufeel bu ko keneen xeebee itam yéen jàpp leen mooy liggéey bu rëy bi jàpp leen ne fii mu nekk imaam yii ak jàngalekat yii ñooy njiiti réew mi responsabilité bu toll ne dopp njiitul réew mi moom la ñu yor kële day kii ma defar la ñuy lekk ak la ñuy naan yàlla na ko ci yàlla dimbali waaye kii bëgg a defar doomu aadama nag parce que yéenee tabax kooku moom mat naa ñaanal waaye jaadu na mu feddali ak laxasaayam yàlla na boroom bi tabaraka wa taala def ci réew mi naataange xiir nit ñi ci ñu dellu ci seen boroom ak jaar ci siraatul mustaqim ndax ñi yeyoo ay xéewali àdduna ak xéewali àllaaxira ñaareel itam ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey jéem a góorgóorlu yàlla teg leen ci siraatul mustaqim wërsëgale leen li ñuy tudde albitaanatu saaliha muy ñu dend ñoom ñoo xam ne ni ko yoon tadulluhum ala alxaqi wa tamdaahum an il baatil yoo xam ne dañ leen di digal dëgg di leen ca laa biire di leen dimbali ci topp ko di leen wattandikuloo lu baaxul di leen dimbali ci ñu mën koo bàyyi yàlla na leen ko yàlla warsagale waaw yéen xayrat kii moom dafa am càkku teet ak laaj li muy sàkk mooy nee na mbooloo bi mbooloo bu mag la day sàkk ngeen saxalal bu dee mooy daa tepp waaw xam naa nag euh, liggéey ab conférence at mu nekk loolu moom yombul fi mu nekk nax yitte yi dem na ba àgg koo xam ne euh, mënatuñoo contrôler daanaka suñ programme kii ko yor sax léeg-léeg mu sonn ci digganteem ak nit ñi euh, te it lillahi alhamd mooy ndaw ñi yàlla dogal na ñi ngi taxaw ci li leen war ci seenub liggéey lépp loo xam ne seeni a ngi ko doon def léegi mën nañ koo def ba teg ca dara moo tax nag léeg-léeg lu ëpp ci activité yu mel nii jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci sàppes ñaareel si e, du wàññi dara ndax dana tax ñii mën a jublu ci yeneen ñoom itam yoo xam ne xëy na mooy gën a tollook seeni attaque seen wér-gi-yaram ak seen yu mel noonu moo tax digle conférence yu bari yi moom doonut loo xam ne lu yomb la li ñuy xool kay fii ne mooy fu ñuy jaar ba lu ci wàllu concurrence moom ñi gën koo wàññi ñu gën koo jëmale ci e, téere yeeg jàkka jeeg toog di jàngaleeg ñu nuroog yooyu e, suñ kem kàttan bu wàññi concurrence publique yi waaw dafay wax di asaka salaire nit ñi comme li xam nga lu mel noonu di sa toog fii rek daal di bi bàyyi leen impôt yi te jubli ci asek loolu loolu ab liggéey la boo xam ne nekkul lu yomb liggéey bu yomb bu diis la bu yàgg la boo xam laaj ne convaincre nit ñi ba xam lan mooy asaka dëgg dëgg dëgg ak ban njariñ la am ci askan wi ak itam lan ngay tontu ñi nga xam ne ñoom gëmuñu sax asaka wala gëmuñu lislaam sax na te nekk ci biir réew mi yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ñuy jàkkat la ala kulli xaal jàpp naa ne bokk na ci réew yi gën a avancé ci wàllu zakat mooy Indonésie Indonésie dem nañ ba euh, commerçant bi commerce bu fekkee ni génne na asakaam am ay factures yu koy firndeel bu ko indee na asaka ja toll danañ ko génnee ci ay impôt yam waroon a joxe loolu nag ab jéego bu avancé la boo xam ne noonu ci ca àggoon kooku dana nekk aw yiw woo xam wu bu mag a mag a mag a mag moo tax euh, xëy na keesi asaka yi nekk ci réew mi nga xam ne jàngal nit ñi asaka ak génne asaka di ko jox ñu ko yeew moo leen tax a jóg lu mel ne Fonds sénégalais pour la zakat ak yi nuroog moom ndax am na ab lim bu fi am ci ay kees Eh, su fekkoon ne ñoom seen jëmi bopp bokk nañ dox ci loolu ay jéego seen diggante ak état bi du ñàkk ne eh, lu mel noonu war naa mën a leer ci seeni bopp te jàpp naane ne du lu jafe ndax ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ca kaw tey am na ci kenn koo xam ne membre la ci fond boobu yàgg na cee liggéey yàgg na cee dox kon expliquer leen lu mel noonu mu leer ci seeni bopp du doon lu war lu jafe waaye ñi xam ne àdduna ni muy doxee ni muy doxee tey nekkul ne jenn jëm ci état lam bëgg rek mën na ko daal di soppi état ba di dunde noonu li leen wër ci ay yëf yoo xam ne yenn yi ci biir réew mi la nekk yenn yi nekk ci bitim réew yoo xam ne nit ki dana di xëccu di xëccu ba ak fam jëmoon gis li koy wër ci ay défi dana tax muy jëfe noo xam ne xam na ne lim doon wax lépp ngir mu tëdde noonu dana jafe waaye nag ñu ëffal leen tuuti ndànk-ndànk di leen ñaanal te ku leen jege gis luy nuru tarxiis wala luy nuru yooyu nga jubbanti sa kem kattan loolu rek mooy doxee ni ba kër yi ñu am liñ bëgg waaye tomb bii mu tudd ci tomb yu am solo yi la muy dundal zakat dundal li ñu tudde waqfu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne institution lañ ci biir lislaam yoo xam ne ci li gën a gaaw ci xeex ñàkk ci la bokk ci li gën a ci xeex ñàkk ci la bokk ku mel ni émirats arabes tey ci wàllu zakat ci lañ jaare ba tax ku ñàkk amatul ci seenu réew maanaam nationalité boobu kenn yoru ko ba noppi yaayoo asaka ci émirats arabes tey matax tax bu ñu amee seen asaka bitim réew lañ koy yóbbu di ko joxe wala ñu sàkkal ko meneen pexe waaye euh, nit ñi moom mënatuñoo lekk asaka la cay firnde rek Fonds sénégalais pour la zakat bii nga xam ne deux mille neuf la créé benn benn nit yi ñuy financé nga xam ne dañ leen di jox ñu dem liggéeyi ñu di leen contrôler leen topp am na ci ñoo xam ne ci kees gi ci lañ amee liñ tàmbalee liggéey bis ni tey ñu ngi génne seen asaka di ko delloo ci kees gi loolu mooy wane ne zakat day dindi nit ki ci ñàkk yóbbu ko ci mu suqaliku parce que ku suqalikuwul du joxe asaka naam kii dafay wax ne moom day jéem góorgóorlu ci alquran ak sunna waaye way juróom góor dafa faatu ci seen dëkk ñu suul ko fa ba noppi tabax bàmmeelam di ko ziyaare man taxawaay koy dégg waaw koo xam ne day góorgóorlu ci sunna na góorgóorlu ci sunna rek sant yàlla te a dund sunna moom su fekkee ka tabax ko loola nekkul ci responsabilité moom te bañ koy def tàgguwuñ ko te it participer wu ca la cay taxawaayam mooy nay ñaanal waa waajuram rek ndax yàlla nangu ko ndax du caage ni waa waajuram moo def loola waaye dañ ko def ci moom kon nag loola du dox digganteem ak mu di ko ñaanal su ko waree ziyaare jeet dana dem ziyaare ji ko waaye nag bu amul sultaan boo xam ne moo fa mën a jëlee tabax boobee jarul mu di ko jéem ndax léeg-léeg ñii ñu yoog sharia danañ taxawal loo xam ne dindi ko ci boppam fitna lay doon su boobaa jëfandikoo xikma mooy baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, mas naa wax soxna Aïcha radiallahu taala anha ne ko budul woon ak eh, sa gaay yi day li ñu yees ci lislaam kon kaaba gi dama koy toj delloo ko ca na ko Ibrahima tabaxe woon delloo ko ci qawaayidu Ibrahim waaye nag dañoo yees ci lislaam te xamaguñ lu bari maanaam foofu mi ngi sàmmoonteeg ne bu fekkoon ne daa ubbi màkka rek ñëw un mois waa mois ñi ne ma ngay toj kaaba nga ñu ne mu ngoog nag waxoon nañ leen yàq diine ko tax a jóg danañ yàq ab daram tubbiloo nit ñi ñu ñu génn ci lislaam waaye sàmmoonte ak loola moo tax kaaba ga mu bàyyi ko noonu delloowu ko ci xawaayit yi ko Ibrahima tabaxe woon ndax xam nga ne loolu yi ñu tudde xijru Ismail muy tabax bu weex boobu ngay gis ci wetu kaaba gi loolu ci biir kaaba gi ci la bokk ci biir la bokk moo tax kuy wër da koy waraale boo ko waraale wut sa tawaaf baaxul ndax noonu lañ ko jëkkoon a tabaxee bi màbbee ngir ndox mu bari mu fa ñëwoon ba Quraysh di ko tabaxaat seen alal matewu ko ci lañ génne loolu ci biti ñu nañ tabax lu tolloog lin am rek daal di tabax lu ñuul loolu nga xam ne moom ngeen di gis lu weex li ñuy bàyyi ko ci yi waaye ci biir la bokk waaye nag dem na ba nit ñi gëm ne mbir mi nii lan mel ba ak foo xam ne ku ñëwoon di ko tojati di ca boolelee danañ ni kii daa ñëw di yàq diine ji wala daa ñëw di toj kaaba gi moo tax léeg-léeg yu mel noonu sàmmonteeg mu du doon loo xam ne luy bàyyi dara la wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain xam naa noonu dañuy daal di tàggoo ndax daa am as yitte soo xam ne suñ war a doxi la fu nu jullee dabee rek nu jullee foofa incha allah di sant mbokk yi bu baax a baax a baax ci Euh, liggéey bii nga xam ne moom la ñuy liggéey fii di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dolli leen tawfiq dolli leen listiqaama dolli leen jaat siraatul mustaqim euh, di sant bu baax a baax waa xarakatul falaax xam ne moom sun digganteeg ñoom du du ñaari diggante benn la yaakaar naa ne yëpp xam nañ ne darsu saxiixu muslim ci masjidu Kolobaan fa lañ ko jàngalee ba su jonni tey nit ñaa ngi koy déglu ci déglukaay yi te loola lenn la ci li nga xam ne lu ñu boole ñoom la waaye lañu boole ñoom gën naa xóot loolu asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah kon xam naa ñaane yàlla chef rek mu te ko ci jàmm tey information bi ñu joxe rek mooy conférence yi aju ci wàllu sectorisation bu CMD dana amal conférence fële Wakaam le 19 mai ak oustaz Mor Kébé le 19 mai incha allah ak oustaz Mor Kébé Sangalkam le 26 mai lay doon ak seriñ Khadim Diop. programme bi doon xew nii bu ngeen demee ci page YouTube bu benn wutiw di ngeen ko fa fekk incha allah mënuñu de di jotaay ma ne lu dañoo ñaanal sunu ay mbokk jullit ñu daan faral di bokk ci liggéey bi ñu siy tudd ku mel ni Thierno Ba Abdoul Khadir Sey ak sunu mbokk Mohamed Dieye. di ñaan yàlla mu jéggal leen te yërëm leen wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin